how are you <laughs> sama gars <laughs> yi tey dañuy dem Amérique waaye bala ñuy jàll ci revue bi nag xool leen suñu arc de triomphe fii Espagne rafet na wala rafet waaw waa France bi yéen rek am de donc nag sama gars yi comme ni leen koy expliqué Alphie Cuisine no stress euh, ñu annoncé woon fi nag que ni dafa am ay recettes yoo xamante ni pour xale yi la donc tey dañu dem Amérique jëli seen hot dog hot dog burger bu neex koo xamante ne euh, recette la boo xamante ni ne dafa fusionné ñaari tur Euh, boo xam ne burger saveur burger ngay am mais visuelu hot dog lañ koy def sauce ketchup euh, bil euh, sauce ketchup sauce mayonnaise ak moutarde bi nga xamante ni en général moom la ñuy def ci hot dog yi tey moom la ñu bëgg mijoter fii ci Alphie Cuisine bu ñu paree ñu bëri ñu bëgg dellu nekk xale parce que nekk na recette bu neex boo xamante ni man ne xale bu ma ko jox dama lay gunge man nekkaale xale pour mën ci mën ci déguster donc mi ngoog tey waa États-Unis ñoo aaye Euh, dem ba seen dem ba seen dëkk jëli seen ordre moo tax tey ma xëy ni xaw a yu ma déggoon anglais ngeen am problème en anglais laa ko naroon defee mais comme yàlla def ma nattu ma bañ a dégg anglais moo tax ma yem ci xaw a yu euh, lu ma waxoon sax euh, hello how are you <laughs> donc ñu dem Alphie Cuisine daal di mijoté hot dog burger bu neex boo xamante ne bu ci paree ku nekk di nga am sa version nee naa la sama gaa yi Alphie Cuisine lay doon. bonne humeur lay lay nekk ak neex-neex saa nekk ciao. <laughs> sama yi tey fii laa génn yéyee wëy bi foog ma leen ciy may musul leen xam ni kon damay wëy <laughs> nañ def dawlin bi tàmbalee frite bi ma dugal menu du jour bi ndax annoncé nañ ko ba pare <laughs> li ngeen ni seen muy viande bi moom laay jël nii def ci persil chinois donc maa ngi ñëw de sama pésti chinois chinois daal di jël sama xorom nag def ci ñëw ci curcuma sànni ci tuuti soo xoolee quantité épice bi may def bëriwul euh, bu la neexee tam mën nga bañ a def épice ah, parce que ñu bëri duñu mën a am possibilité am épice yëpp donc lii ay en poudre la moom it daf ciy ñëw ñu def ci tuuti euh, ma ñëw ci sama paprika bi sànni ci tuuti mu ne cas buubi génn Euh, ma ñëw ci romarin moom mooy épice su ndawal dëgg wax dëgg yàlla romarin frais euh, romarin séché c'est très très bon ça marie très bien avec la viande herbe de province moom maa ko bëgg sama bopp man damay tëdd sax di ko gétt waa nañu herbe tuuti waa mi ngoog donc bu ko defee nag moment bi ñu jël pour lier la tout toj ci benn nen euh, daal di commencer nag mélanger donc comme ni ñu ko annoncé ci introduction bi ay hot dogs hot dog burger la ñuy defar mu nekk goûter xale yi mais foog naa ni bu recette bi paree dana am mag yoo xam ne dinañu bëgg dellu nekk xale ndax euh, am na yenn ñam yoo xamante ni di ko jox xale sax wóoru damay ragal mu mu bañ a màgg ndax neex waaw ñam yi moom xale bu koy lekk naa la gunge moom nekk nekk xale donc mi ngoog viande hachée bi ñu jàmb mën nga jël sa loxo dugal ci biir mélanger ba yépp jaxasoo donc ñu réserver frites yi sama pomme de terre maison frites maison yi nga xam ne tey moom laa jël dagg sama ñaari pomme de terre defa sama frites comme sama yaay ni mu ko doon defee euh, mi ngoog defe naa moment bi nga xamante ni doore na te nga jël sa papier absorbant daal di ko ci fegg nag waaw mu euh, gis ngeen sànq bi may présenté sama produit yi ak sama papa jooju Ismaïla Lo nga xamante ne may fan si number one gisoon ngeen banaan plantain donc mi ngoog quelque rek nga xam ne dafay andi goût ci bu ñuy lekk sunu hot dog moo tax ma taamu ko ci et sama jëkkër bëgg na ko loolu banaan planté yi moom lam ma woon Pérou foog ma nettali leen pata bi ngeen ma gisee woon yëpp banaan planté yi moom ma ko yóbbu boo nee banaan planté dina dem ci Amérique latine parce que foofu dafa bëri surtout bu verte bi donc frite bi pare ñu wis ci tuuti paprika parce que dafay dafay andi bu neex donc bu ko defee nag ñu daal di jàll ci li nga xam ne moo tax ñu ne hot dog burger donc viande hachée bi la ñuy jël façonné ay euh, merguez yoo xamante ni dañ koy euh, dañ koy dañ ciy enfourner fromage bâtonnet fromage yi ngeen gis donc dañuy dañuy jël tuuti papier film nga xam ni moom moo ñuy dimbali pour ñu mën ko enrouler bu baax su fekkente ne tamit amuloo papier film jëlal sa loxo rek nga daal di euh, jël sa viande hachée teg ko ci sa blanc de travail jël fromage bi dugal ko ci biir daal ba mu bañ a feeñ loolu daal mooy mooy mooy mooy but bi donc mi ngoog bu ko defee nag ñu jël Euh, morceau de fromage bi ginnaaw bi nga defaree sa benn rectangle ba pare dugal ko ci waaw dal di koy rouler nag tëj ko ci ba mu nekk benn bonbon benn boudin boudin bi nga xamante ni des fois saucisse ngay am xam nga boo boo doxantoo ba booru États-Unis ana sama gars yi moo mënoon anglais waaye dugal tuuti anglais nag mais man dama fooru dara ci anglais mais man maa ngi nuyu waa Amérique euh, bëri nañ fa nag ay suiveurs de waaw léeg ma jot ay commentaires en anglais woo sama doom ji ni ko kay traduire waa jàppale sa yaay ndax entreprise moom boo ko yoree ñëpp ciy liggéey nee naa la Ricardo mooy monté mooy filmé waaye Léo mooy traduire anglais bi ay yooyu yooyu yooyu yëpp daf ciy baax yooyu yëpp daf ciy baax mais jàng du wees dinaa ko jàng de anglais bu soobee rab bi dinaa ko jàng nag bu ko defee may def samay Alphie Cuisine ay vidéo en anglais ay léegi la boobaa ngeen am problème de <laughs> anglais rek <laughs> donc ñu defar deuxième defaraat benn deuxième boo xam ne pour ñi nga xam ne xooluñu bu baax ñu mën a réalisé waa donc li ñuy def mooy dañuy tibb ñaari kuddu ci viande hachée bi ñu mariné lal ko ci papier film bi jël bâtonnet fromage yi emmental wala euh, bu suisse ba gruyère nga xam ne da ngay wut sa ay bâtonnet wala yeneen xeetu fromage yi ngeen bëgg cheddar mooy bu jaune bi neex na ci trop nga jël ko daal di koy am euh, enroulé ci biir nga xam ne daf lay jox. Euh, texte hmm, nu mu tudd visuelu euh, saucisse bi nga xamante ni moom la ñuy faral di def ci hot donc lu tax ñu ne hot dog burger mooy dañuy jël li nga xam ne mooy dem ci hamburger muy viande hachée ak fromage def ko mu nduroo ak saucisse bi di dem ci hot bi. ñu daal di mélanger rek jaxase fusionné recette bi déggoo ma de <laughs> mu jox ñu odog dog burger nga koy lekk di sentir hot di yëg burger lii de laa andi tey toujours mu dugg ci catégorie guddi xale yi rek. parce que yii xale yi suñuy dem sorti xale yi suñuy dem suñuy dem suñuy def sa ay anniversaire mën nañu defar genre recette yu mel nii mën nañ ko añee mën nañ ko reeree mën nañ ko yóbbu école mën nañ ko def ci fête anniversaire yi donc mi nga ngoog rouleau yaa ngoog boudin yaa ngoog tege nga daal di def sa tuuti tuuti huile d'olive nag euh, wala beurre wala dëwlin bi nga am donc mais tuuti rek parce que tout le temps dañu naan dëwlin bi dafa bëri bien vrai que juste pour frire la te dëwlin bi kenn ko consommer ko defee nag nga daal di jël sa ay boudin viande hachée bi ñu en bi ñu euh, fuuree ak fromage daal di koy saaf nag wàññil gaz bi ba nga xamante ne partie yëpp dafay ñor su ko defee nga koy tourner de temps en temps muy roulé wu fromage bi di génnaale tuuti di xelli yàqu si dara mais terewul euh, su recette bi pare fromage bi ñu dugal ci biir dina ci def ba léegi parce que gis nga quantité fromage bi ñu ci def tarkalla euh, on a été généreux généreux donc mi ngook ñuy wëlbati de temps en temps euh, gis ngeen mburu yi sànq muy pain hot dog yi xaw nag Espagne lu leen dal mais seen ay pain hot moom comme comme sandwich réyee na nu ne ngandee na nu ne mais nag ak ku nekk loo am rek ngay ngay demee marché donc boo demee ci sa boulanger di nga fa mën a am pain hot dog boo demee ci grande surface yi di nga mën a am pain hot Euh, defe naa boutique yi sax léegi pain wala yi mën nga ko jël reprendre recette bi parce que euh, dañuy def loo xamante ni ku nekk di ko mën a reprendre pas compliqué ay recettes yoo xamante ni ku ko bëgg def da nga naan ma alsi aw ma woon pain bi moo tax mënu ma ko def jëlal sa pain boo am même pain au lait ça mën na ko def donc mburu bàggoog wax naa la xool ko numéro yi donc ñu daal di xar jël suñu bu nee nag euh, viande hachée fromage daal di ko ci def nag tarkalla waaw yàlla na xel dee moment yi dafay neex nii ngay présenté nii euh, muy xelli euh, odeur bi di gilli oh léegi nag comme man bëgguma ñoom ketchup ak ñoom moutarde man nii laay bàyyee sama bos nii laa koy lekkee mën naa ci rax tuuti moutarde mais dama koy tegee nee de daal di jàll ci beneen donc ñu jël euh, trio moutarde ketchup mayonnaise bi gisoon gisoon ngeen ko toujours ci tibidi bi tibidi bi bi muy jàll gisoon ngeen élément de présentation yi donc nga jëlaat beneen beneen euh, rouleau bu dee ndi viande haché daal di ko ciy def nag moment bii nga ñëw def mayonnaise def moutarde def ketchup donc ñoom dañ leen jënd euh, ci bouteille yi nga xam ne ci lañ koy def pour présentation bi gën a rafet mais soo ko amul yàqu si dara am na ay bouteille vide yu ñuy jaay yoo xamante ni mën nga jël sa ketchup sol ko ci mën nga ci sol sa mayonnaise fait maison mën nga ci sol sa moutarde et puis mën a am Euh, jeu de couleur bi nga xamante ni moom la ñuy soxla donc beneen troisième bu leen fàtte man ak Alfi la ak euh, man Alfi Léo ak Ricardo la donc Ricardo lañuy defar nii tarkal la <laughs> moom moo tombé ci bu rëy bi moom waaw yàlla baax na yàlla baax na nañ ci def tuuti moutarde ngokk daal di koy ketchup daal di koy mayonnaise tarkal la bu leen fàtte frites yi ñor na tuuti salaat yàqu ci dara Euh, donc mi nga mais nag euh, je ay repas yu copier la nii nga koy gisee nii mu nga foog ne lu ndaw la euh, benn moom doo ko mën a jeexal man bi may lekk dama réservé woon ñaar parce que six six laa ci defar mais benn bi sax mënuma ko jeexal tellement c'est consistant parce que protéines yi ci yàpp bi mburu bi ñëw fromage bi ñëw andi calcium bi neex neexu sauce yi frite ba tarkàllaak banaan plantain ba ba yëpp jaxasoowee moom boo ko lekkee moom Euh, waxuma la kii ci rek mais boo moytuwul sax koc ngay def donc bi nga lii nag laa bëggoon partager ak yéen mu nekk toujours mënu xale yi nga xamante ne Alphie Cuisine daf koy proposer euh, toujours def attention ci mu euh, tax moutarde ketchup mayonnaise bi nga xamante ni duñ koy faral di utiliser mais tam lekk la léeg-léeg da ngay teral sa bopp léeg-léeg daal mais pas nag di ci abu abusé surtout pour xale yi donc euh, defare leen ko seen ñees yi seen doom yi euh, jarbaat yeeg euh, sët yi donc daal pour xale yi la ku bëgg nekk dellu nekk xale rek reprendre recette bi jaajëfal naa leen sama gars yi à très bientôt sur Alphie Cuisine